démb ci ab conférence de presse gi coordination des musulmans du Sénégal amal ñoom ci lañ statué ni tey ji moo na la doon maanaam bésu aydal fitre bi mu di korité di dëppook benn fan ci weeru shawal waaye loolu ñoom wéetuñu ci ndax bokk nañ ko ak yenn réew yu ci sous région bi lu mel ni Côte d'Ivoire lu mel ni Niger lu mel ni Mali loolu la maanaam ñu fàtte ni coordination des musulmans du Sénégal mu di CMS daal di statué ñu bokk ko ak réew yooyu noonu ndax ci ay xibaar jot nañ ni maanaam weer wi feeñ na ci dëkk yooyu waaye fii ci réewum senegal weer wi feeñ na fu mel ni euh, velingara ak fi ni euh, wax euh, maanaam Kanel ci boor yooyu noonu ci benn dëkk dëkkaani ci goxu Kanel Vélingara nag ñu préciser Vélingara ëppal la ñu maanaam indi ay leeral comme source waaye nag CONACOC mi nga xamante ne moom mooy commission bi nara euh, saytu wàllu feeñu weer gi ñoom tey nag ci àllarba gi fas yéeneen jàkkaaroog askan wi def ab déclaration kon ñu njort ni alxames gii ñu jëm incha allah moom moo nar a doon euh, korité ci li ëpp ci kër diine yi ci euh, Sénégal waaye nag tamit ci boo jëlee bitim réew lu mel ni France ba ca Màkka bëri na réew jullit yi nga xamante ni alxames gi moom lañ nar a dundal loolee nga xamante ni moom mooy ay el Fitr di korité dëpp benn fan ci weeru Shawal beneen xibaar nag mooy que ni am na ñeneen ñu xalaat ne lu mel nii nag war na mën a denc réewum Sénégal ndax réew mi war na toll foo xam ne borom xam-xam yi war na noo diisoo xàccandoo dóorandoo ndax umma la wax communauté la wax ñu war a mën a maanaam dëppoo ci di koritendoo di maanaam umeendoo koor ba di wari nu nu ko euh, leerale waaye nag am na ñu xalaat ni loolu dina jafe ndax Sénégal nekk na réew woo xam ne souvent tamit gis-gis yi dañuy faral di wuute maanaam ku ci nekk ak na ngay jàppee ndax kan mooy nangoo bàyyi fekk ji moromam ci wuute gis-gis yoon na maanaam lu wàllu ixtilaaf la donc ci tënk daal yéene gi daal mooy maanaam benn Korité di am Sénégal bañ a defeti maanaam fête bi ci division fa ñuy dalijee ci beneen xibaar gu fi ruus mooy euh, dëj ak tiis maanaam bi nga xam ne dal na ci kaw Viviane Chidid Ndour maanaam la reine du Jolof Band Viviane nag ki ni wax manageram di Djidiack moom moo ñàkk waajuram wu góor tey jii nii ah, dinan ko rob sax mu di loo xam ne tiis la ñu koy ñaanal di ko présenter présenté suñuy condoléances di ñaan fa mu jëm gënal ko fa mu jógee ñu jeexale nag ak sunu star googu noonu di Youssou Ndour nga xamante ni c'est une star interplanétaire maanaam sagalatina Sénégal ci raw gàddu gi nga xamante ne amal na ko ci mboolem si nekk Afrique moom moo jiitu ci wàllu euh, koppar kopparam tollu ci maanaam téeméer ba ñeent fukk ak juróom ba ñuy wax sax téeméer ak juróom fukk mu di cent quarante cinq ba cent cinquante millions de euh, dollars Youssou Ndour daanaka am jiitu lu sori ki nga xamante ni moom mooy Akon mi ñu bëri jaaxle ni Youssou Ndour nan la def ba raw Akon waaye fekk na ni investissement yi kenn ku ne ci ñoom moom moo bokkul Youssou Ndour a eu la chance maanaam investi ci ay domaines yoo xam ne indil nañ ko lu bëree bëri bëri bëri bëri bëri ci wàllu euh, koppar mu di raw gàddu goo xam ne amoon na ko daa waaye waat na ko ren kon Youssou Ndour jiitu na Akon mi nga xamante ne moom 80 million de dollars la am ci valeur nette mu di juróom-ñett fukk ci suñuy ci ko ci ci ci millions de dollars ci kopparu américains yi di leen jaajëfal ci ànd gi topp gi